li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek manifestation yi nga xamante ne door nañ ko ci capitale bu Sénégal niki tey jii ginnaaw génn ko nemmeeku nañ fa nag mbooloo mu takko takku fi nga xamante ne moom mooy ca place de la nation HLM ak fi nga xamante ne rek moom mooy ca diwaan bu Colobane askan wi nag dal dinañu génn rek wane seen mécontentement maanaam daal mer bu futu rek ñeel nag dogal bi nga xamante kii di Macky Sall daal koy jël lañ cay wax nag ne nañ Macky dictateur la fala nga xamante ne rek moom mooy ci terrain ji waaye ah, ah, nag fas rek jàmmaarloo ji waaye nag terewul benn yoon rek askan woowu ñàkk a wàcc nag ca boobulee mbedd Saint-Louis tamit mbir mu mel lañ fa daal di nemmeekuwaat autoroute à péage bi moom jamono ji daal dinañ koy baare fi nga xamante ne moom ca yoonu Colobane oto dem ak dikk ba nag daal dinay tàggateem ba mbir mu nu mel mi ngi xew ni ki tey jii rek ginnaaw bu ñu jullee ajjuma ba noppi ndaw ñi daal ñu namm lu lenn rek lu dul ñu libéré li nga xamante ne rek moom mooy Sénégal waaye nag fexe rek ñu amal lépp loo xamante ne rek jongante présidentielle la nag waaye lépp loo xamante ne rek dafa ñeel coup d'état constitutionnel nag nguur gi na ci delluwaat ginnaaw waral rek ñu wàcc ni ci terrain bi nag ak fépp foo xamante ne rek jamono Euh, ab ndaw ma nga fa rek daal dinay wàcc teel ca drapeau ba lañ cay wax nag mooy Macky Sall dictateur ba tey rek ñu fàttali leen ñi nga xamante ne ñoom ñu di peewal fajiri ni di ñaawlu bu baax anam bi nga xamante ne rek euh, moom la gouvernement bi ba dakkal seen boobule signal waraloon dem di def ab manifestation di naqarlu mbër mënu mel waaye nag policiers yi daal bàyyiwuñ leen ca ndax nag dañ leen daal di tasaare ba noppi rek daal di fay jël euh, sànni fa ay grenade lacrymogène mbir mënu mel nag wala rek ñu daal di ñoom tamit neex ba futu rek di laaj rek démocratie kañ lay des waat ci bile réew Audio Jungle.